incha allah bu soobee yàlla. mën nañ dundee yaakaar daal. dundee yaakaar man ànduma ji dundee yaakaar rek. Hmm. man dama am gëm-gëmu ne damay jël. coupe. Hmm. alhamdulilah. man gëm-gëm boobu laa ànd ak damay jël coupe. Hmm. man gëm-gëm boobu laa ànd ak man sëñ Cissé bu sëñ Babacar. man lu ma yox yoxi Pa Màgget bu ma ca nit laajee du ma ca wax. dëgg la. man yëg-yëg bi ma ànd ak toog fii si Sénégal. yëg-yëgu jël coupe laa toog Alioune Cissé ànd ak gaynde ñu indi coupe bi fii. amiin ñu wàcci aéroport Diass. tarkalla kon sant yàlla man nag amitié dafa xat mm-hmm. xam naa ne nañu jéem a daje ji jam ñaajo jam ñaajo wala ñu jéem a daje ca jas ku ne foo mën a taxaw nga taxaw fa di yuuxu mm-hmm. ba ma koy wax na yegsee guñ final euh. démb sama waa ji may ànd ak di ma dimbale ci téléphone yi loolu damay wax mu ne mm-hmm. waa sëñ bi pourtant la nga doon wax ñëw na de ma ne ko ba léegi xaj ñu amitié nañ dem jas rek ñu daje ji fa wala ñu daje fu gën a yaatu daal fu gën a yaatu wala ñu nekk jam ñaajo rek jam ñaajo ca àll ba ca àll ba ñëpp taxaw bi may ciblé. alhamdulilah man loolu laa gëm man sëñ Cissé bu sëñ Babacar. waaye daal bu ñu bàyyi ñaani daal. non non ñaani moom na njëkk. dooleel gu may dooleel Sénégal ngir ñu gañ li ma ci jublu nag bu match bi jàllee ba coupe bi ñëw danaa ko leeral nii waaye daal nañ def lii ma leen wax rek mooy li nga xam daal moom lay wax ci match bi. barke Serigne Saliou bu ñu ko defee coupe bi ñëw dégg naa am ko naan coupe bi ñëw ci réew mi at mi kooku dafa juum xamul li muy wax sax ak naa ñu sëriñ diw nee na nangam moo teg tànkam coupe bi kenn mënu cee tegub tànk fii muy wax ak yow coupe bi ci sama loxo bii la nekk bu dee dama mi ngi fii. di nuyu waa Sénégal yëpp euh, di leen xamal ni matchu Sénégal Algérie bii nañ ñëpp dalal seen xel. wax ji bari na kenn ku ci nekk mi ngi wax lu ne waaye li may xamal Sénégal mooy na seen xel dal te xam ni Sénégal ay gañ a match bi 2-0 lay doon Sadio Mané dugal ñaari bii wasalaamaaleykum wa rahmatullah. waaw jërëjëf sëñ Ousmane ñoo ngi lay jaajëfal. ñun waa Baye Comtech TV wasalaam ba ci yeneen. asalaamaaleykum sénégalais yi na seen xel dal na seen xel dal bu baax kub bi dina ñëw Sénégal Sénégal mu ngi dóor deux zéro incha allah dalal leen seen xel bu baax a baax a baax te ñaanal président de la république Alhaji Macky Sall ak soxnaam Adjaratou Marème Faye Sall yàlla doole leen fee bàyyi maa koy fees loolu jaaxaluma man yaay fal laa taalibe Cheikhul Khadim laa. match bi day damay jël coupe incha allahu rabbi dog naa ko ci laa ilaha illallah muhammadu rasulullah barkeb Serigne Bamba barkeb Serigne Bamba barke xaadimal maxtaar damay dóor Algérie. bu yóbboo naa am sama yoon nekku ci naa am naa am victoire rek lu ma am jël. oxo eh bu set léegi nag la mooy bi mooy sarax dafa am sarax yu des yu ñu war a dindee dafa am set nag yu xonq set nag yu weex set nag yu mélangé ak ànd ak kilo góoro donc yooyu la ñuy dem def ko si géej bi si sarax si kenn du ko lekk foofu lañ koy reyee suñ ko reyee foofu incha allah su kattanu yàlla dañuy am lu ñu bëgg ñun ñëpp Sénégal dañuy kontaan mais suñ ko deful dañuy dem ba nga xamante ne fu ñu yaakaar foofu la ñu amee ndam. Hmm? benn sama xarit bu ñuy wax Cheikh Ahmed Dame Cheikh Moustapha hmm. ni wax naa leen ko ne leen Sénégal mooy dem final mooy alsi moog Algérie te mooy jël coupe bi. Hmm, loolu laa gis te Sénégal mooy jël coupe bi laa gis. loolu lu wér lu wér waaw am na sëriñ su bari ñoo xam ne dañ ciy génn di wax naan Sénégal nii Sénégal mais daal dama gëm ni man daal ñi nga xamante ne yàlla mooy borom xam-xam yi dëgg moom ñooñu moom gisu gisuñu leen jàpp mooy sa genre daal maanaam waaw maanaam man li ma li ma ci wax. waaw xam nga yàlla. dafay dogal ay mbir léeg-léeg. dëgg ñi ma jege xam ma. xam la waaw ñu bari démb. amul match Sénégal yi ñu génn yëpp muy huitième de finale beeg ba ci yëpp daal. Mhm. yi dernière yëpp damay faral wax ni ma ni bu fekkente ni maillot vert yi la. Mhm. incha allahu dañuy gañe chaque instant dama koy wax maillot vert yi moom euh, am na am na solo daal parce que boo seetloo verte. verte bi mooy mooy mooy fi ne nii kiiwu kaan bi daal. Mm-hmm. mooy njiglaayu kaan bi. dafa am nag ay kii yu ci nekk ndax boo seetloo dangay gis benn année da ngay gis benn couleur zone bleue mooy dem final mooy dem. seen xel àggu foofu am ñoo xam ne seen xel àggu foofu waaye li ma lay junj nii mooy Sénégal ren ci coupe bi dina mës dina àgg fu kenn musul fu musul àgg ci coupe bi ci coupe d'Afrique bi. dina yàgg. dina yàgg fu yàgg ci coupe d'Afrique bi man maa la wax lii nii Sénégal. waaw dina yegg foo xam ne mosu fa yegg ci coupe d'Afrique bi ci kàttun yàlla incha allah fu musul am lu luñ musul am ci coupe d'Afrique dina ko am ci kàttun yàlla waa nee naa la nee naa la yàlla dafa junj léegi nag borom xel yi nañ dem bii passé boo gisee jëluñu coupe lañ ma war a fay dañ ma war a mottili lekk xaas ba fayu ñu ma moo tax jëluñu coupe ba léegi tey boo seet si boo ñëwee seet si ma laaj ma équipe nationale fan la war a mujjee kooku dama si sawar ndax lu xam la gis nga sëñ bi ñii ñu coow fi jamono jii nii dañoo rëy fi di wax rek waaye kenn mënu ma ci. kenn mënu ma ci. équipe nationale. gis nga li ko li ko li ko tere. doon pour ñu bàyyi ci xel ñu ibbi saañ bi sànnee ko gannaaw muy tuuroo ginnaaw te ki ka sànni du gestu bi ci des mooy fa tabarakallahu dañuy wut koo xamante ni dañ koy yónni ca Maroc maanaam Fès ci Cheikh na Tijaani Chérif radiyallahu anhu mu tudd fa mbooleem ñu bëgg a jouer ci biir terrain bi tudd fa seen tur Cheikh di leen dégg lii buñ ko defee fa tabaarakallaahu coupe bi waxuma final waxuma. dëgg la. am na loo xam ne bu ko boo fexee ba équipe nationale bi jëfandikoo ko. Mhm. ñëwee ci terrain bi dañuy naaw. Mhm. kenn du leen téye. kenn du leen téye gis nga suñu premier match euh, kii bi. Algérie. dafa mhm. naa mooy premier bi xaw ma deuxième bi. waaw gars yi dañ leen a sëf. deuxième bi la. deuxième bi mhm. dañ leen a. nee na lu tax Sénégal lu jox coupe d'Afrique yow dinaa ko jox coupe d'Afrique ren ji Sénégal dina jël coupe d'Afrique bi <laughs> yow.